après bu ko neexee mu jël sama numéro. sa waay oh. wax. dafa ndànk moom waxul na sëñ moo ko wax de sëñ Sambay lu mu wax si wala du zina. waaw moom waaw moom gis na vidéo. déglu sëñ Sambay vidéo boobu noonu man amoon naa ko. bu bëggee mën naa xool léegi teg ko. muy wax daan ne. na si wàllu wala du zina lu nga xam ne si tey lu doy waar la waaye waxul ne wala du zina du dugg àjjana yaakaar naa waxul lool moo mi dafa juum quoi. dafa du jiite. waxul lool du jiite. dafa juum man li wax ni xam naa ko baax a baax. lan la sëñ Samba wax léegi wax ni yow sa diggante yàlla lan la sëñ Samba wax. dafa juum wax ñu ko. sëñ Samba yi. Hmm. dane ko dane comme ça koo xam ne doomi njàllo moom bu góor góorgóorloo topp diineem bu góorgóorloo yàlla sant sëñ Samba waxul loolu de waxul loolu de naa ko defal naa ko ni romb naa ko ko de defal bi moo gën a cuune ñëpp ak a cuune ku ko gën a cuune amul. lu diine ah, bi amoon nga ko nest loolu dégg nga loolu mooy wax bi gën a nekk say samba bu gën lu muy wax say samba day wax day tere ju firi alxuraan say samba day tere ju firi alxuraan daal bu ñu firi day saxal daam nañ déglu cheikh bi nañ déglu sëñ samba vidéo baa ngi Bruce envoie ko envoie ma ko sama ordinateur ah, naa ko teg si télé bi ah, teg ko ci télé nga moom day day day daliloo ci xadis bi yonent salaay salaam naan charru moom mooy ah, wala du zina bokk na ci charru salaasa xadis boobu sëñ Samba yi dese koo dégg subhanallah xaaral télé bi lay

ñoo ci ciy yokk suñu suñu suñu astuut li ñu am incha allah. ah sha allah cheikh allah après ñu ci vidéo bi. ma dem vite fait balaa vidéo vidéo wa ok ñëwal ñëwal vidéo ba pare incha allah. xam nga ni xel ci sunu xel doomu aadama ndey ji ak baay ji ñoom rek a def ci ji ñu def ci ji ñaan ko. waaye yonent bi salaa sallam dafa ne huwa charru salaatati moom mooy yées ci ñett ñi ñett ñi mooy mooy ñay ji bàyyi ji moom lu tax mu ne huwa al maa alladi taxarraka awala bil isyaani mooy ndox mi nga xam ne moo njëkk yëngu bi buñ ci mooy moo ko sabab subhanallah loolu mooy cosaan mu ne loolu moo tax moom yées ci ñett ñi mu ne bu jaamoo yàlla ndax dana dem àjjana mu boole ko si juróom-ñeent ñooñu nga xam ne duñu dem safara bu ñu jaamoo yàlla waaye duñu dem àjjana waaye noppil xam nga xel ci suñu xel doomu aadama ndey ji ak baay ji ñoom rek a def jëf ji muy gis jëf fii dafay wax ne si si xelu doomu aadama maanaam si xelu doomu aadama xam nañ ne baay bi ak yaay ji rek ñoo def jëf ji maanaam doom ji moom yoonam nekk si mais déglu lu mu lu mu siy teg moom mooy yées ci ñett ñi ñett ñi mooy mooy ndey ji bàyyi ji moom lu tax mu ne huwa al maau alladi taharraka awala bil isyaani mooy ndox mi nga xam ne moo njëkk yëngu bi buñ ci may moo ko sabab loolu mooy tax maanaam dafa bëgg a taxal doomu jaalo bi ne moom mooy moom mooy ndox bi njëkk a yëngu moom moo sabab loolu quoi waaw waaw ma continuer demal mu ne nag bu jaamoo yàlla ndax dana dem àjjana mu boole ko ci juróom-ñeent ñooñu nga xam ne du ñu jaamoo yàlla waaye du dem àjjana. ñu ne moom dafa laabul ndax cosaanam laabul waaye am na lu a laabal bu xobbul xaws mu liggéeyal ko wala mu yónni ko mu dem wala mu bokk moom julli wala mu bokk moom ñam dana ko laabal wala mu nuyu ko dana ko ko mu dem àjjana dina ñeneen ci def siddiq dégg nga lu wax foofu waaw léegi moom ginnaaw ba mu ñaanee doomu jaalo nena na doomu ya, jaaro nag mën na laab ci léegi moom ci lu mu gëm ci lu mu gëm ci pas-pas ya, am bu mu gëm mu ne bu demee bu demee nuyu xat bu xut bu xut bu mooy sëriñu suufee yi rek wala lu wax bu bokk wala wala mu bokk ak moom ñam wala mu liggéeyal ko nee na su boobaa mu ñam iya, wala mu liggéeyal ko naam dina ko mën a setal pour mu dem aljana nee na kooku boo xëy setal mu dem aljana <laughs> Sey sàmbe yalla ya ko yalla, do subhanallah alazim xam nga yow Dame Ndiaye yow. Dame Ndiaye yow waroon Dame Ndiaye nga tudd xaw ma waroon sant Ndiaye yow ku ñëwee yàlla. Hmm. parce que da ngaa wax ne sëñ Sam Mbaye tey waxul loolu. moo wax loolu moo boole di dugg aljana dugg aljana léegi. léegi waa ji génn léegi nag ab àtteem léegi nag. xaaral ñu leeral wax ji sëñ bi xaaral ñu leeral wax. fii dara mënu fee leer. li nga wax dara xamoo ko ji ah, nga. xaaral ñu leeral xaaral ñu leeral wax ji. xadis bu ñëw ne chatu salaasa xadis boobu dafa am tawjiih dafa ne ñii nga xamante ni moom mooy baay ji njaaloo ak njaay ji njaaloo doom ji bu ñëwee fekk si leen ci bàkkaaru njaaloo boobu boo dem alxaafis ibnu xajar nga dem ci boroom awnul mahbud an-Nawawi ñoom ñëpp nii lañ ko firee waxuñu jëmmi doom ji jëmmi doom ji bokk ci lu dul ni bu fekkente ni doom ji dafa màgg jëf ndeyam ak baayam lañ daan jëf ci njaaloo waaye doomu njaaloo amul benn amul benn bakkaar te doonte xadis boobu xadis bi ci boppam dafa amul wute xadis bi nekkul xadis bu ñu dëppoo nekkul ci Buxaari ak Muslim xadis bi nekkul ci Buxaari ak Muslim xadis xadis bu ñu wuute la charru salaasa mooy xadis bii nii naam comme doomu njaaloo comme ni mu ko waxee yàlla da koy atte selon moom nu muy attee ñeneen ñi su fekkee mu ngi def digle yi di bàyyi tere yi day bokk ci ñu baax bu fekkee rek dafa def safaan day bokk ci ñu bon waaye si sàmbe xool ci yokk moom lo xamne newul sax ci hadith bi mom moo indi ne na doomu jalo du dugg aljanna lu dul ni da dem ci khutba khutba moy sen serigne yi yéen ngeen gëm moy sen serigne yi mu dem ci ben serigne sen serigne yi mu liggéeyal ko <laughs> wala mu nuyu ko wala mu bokk ak bob lek ah legi dugg aljanna legi ñu ko tënk ci bokk ak nit lek est ce que nego khutba yi ñëw kañ la dugg aljanna <laughs> kañ la bokk ak nit lek nek sabab ci dugg aljanna. subhaanallahi lazim boo tax ma ne ku ko gën a réer ku ko dàqas càkkaate amul. vidéo bi boo ko déglu ay njaaxum kese yow bëgg nga dellu ci seen sëriñ yi bëgg na yow yow nga màggal ko comme moom ci sëriñ yi sax la bokk waaw a na yow ngay dellu ci sëriñ yi di leen sukkalaka raamalaka yu mel noonu léegi bu ne la doomu jaalo bu indi fu yeneen tamit wax ba pare de mu dolli ci du dugg aljanna léegi mu ne pour mu dugg aljanna nag. dangay dellu ci ay sëriñam ci tariqa suufiya mooy day bokkal sëriñ bi ñam bokk ñam rek ñam su bokkee moom ñam rek wala nga liggéeyal sëriñ bi parce que instant boobu sëriñ yi mu ngi pour ñu ñëw di liggéeyal sëriñ si ah ko mag yu mel noonu di leen liggéeyal di leen bayal tool mu ne wala wala lan bi nga bokk moom lekk wala nga bëgg na. foofu bëgg na. foofu bëgg na nga dem nuyu sëriñ bi di ziyaare sëriñ bi di ko nuyu ñëw ci sëriñ bi di ko bokkal parce que nuyu bi day ànd ak day ànd ak kayit ah, nuyu saa kayit nuyu boobu taxul muy wax de waaw ah, nuyu muy wax booy nuyu bokkal comme c'est lépp politique la c'est lépp ci ñoom lay dellu waaw ah, comme loolu mooy lu wër ci masala bi mooy doomu jaaloo amul bàkkaar doomu jaaloo day nekk imaam day jiite dañuy bokk ak moom lekk doomu jaaloo dañuy bokk ak moom ndab dañuy bokk moom nelaw dañuy bokk ak moom lu nekk dañuy bokk ak moom julli waaw bu fekkee doomu njaaloo dafa jàng ñamu nekkal moo la gën a jàng moo war a nekk imaam waaw loolu mooy lu wër. ah man de gars yi dañ may teg sa doomu njaaloo chaque jour de waaye ah <laughs> sëñ Samba li mu wax doy na waar rek mosu yaa ngi doomu njaaloo lañ lay woowee doomu njaaloo rek.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 مذهبها مذهب السلف الصالح نعم، نحن نتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم